kala ma lan la la jox sa yoon nekku ci toogal fa xam ngeen da ngeen a dëgër bopp waxuma leen bul génn kër gi ñaan da ngeen di jéem a génn kër ay noppil yow ngaan sori wuñu yow baat sumay wax ngay jéem wax am looy wax te yéen remarqué naa benn affaire fan yi ci yéen damay gis ngeen solo ko simmee ko mel na ñu wéru loolu yaa ngi koy soog gis ay dimbali ma ngaan gis nga loolu yéen xanaa neewoo leen ma da ngeen indi seen yére fii ci biir kër gi gitu. de ah waaw waaye yow yéen fuy ngeen de mu naan waaw di jéem a dëggal yéen damaa signé ak yéen contrat ba ngeen di jéem a indi seen yére fii ci kër ok xam nga ba ngeen dugg ko seen bopp yi mooy ngeen noq ca biti. vatan. vatan us. us kay. ki dëgg ak waaw monsieur Ka ma Ka ma Ka ma wax sama dëgg naa yow wax sa wax sa bopp jot na ku ñaan nga nga man ni fas bu roos nga man ni sa kanam nga man ni jox sa bu doos mi ku ñaan nga ku bon nga ku ñaan ku indi nga. Ya ya bon. déedéet waay Kita kenn du Kita dafa indi waay nga mel ni sàppal ne. non non kii xanaa xamoo ne balaa moo wax waxu nit waxu dof la njëkk a wax. kii kay wax mu mankaala wax. waaw waaw ok mankaala kunkaala xam nga lu ma bëgg ngeen dugg ak seen bopp mu ngeen dugg. yéen leen ndayam si kita ah Ya dafa mel ne da ngaa mer de. kii dafa dafa mel ya eh, de de. ah monsieur. Eh, waaw da ngaa bëgg ku la neexal. ma aw ma aw dara sama lam lam am ak sama voix wuy samay géem ñu tarama ma mun naa laa bàkk nu may ne mun naa laa bàkk loo xam ne mooy sama métier. yow nag gis nga baatu géwél boobu nga wax soo moytu ci laa lay ñuusee ba nga tëddal fii sa bopp. te sama yéen a géwél dangaa bëgg dangaa bëgg ku la bàkk. Mhm. naa la bàkk lu ni la lu midi ak baa ñoom naa la bàkk lu ni pusa xanaa nga ko muy coro coro. moo tax ma ne ko ki neexu leena ay billaay yaay sunu waay he ah. yaay sunu xarit ah. kenn demul balla eh yaay sama waay ay baabay ah ah dëgg la ngeen dem ci ngeen bàyyi ma ma xalaat ba xam da ngeen ni génn wala da ngeen ni ndeysaan xool ma feex dafa baax nag dafa baax xool ma feex nag nañ dem balaa moo changé euh, xool ma feex nga fa emal jigéen day moom di mujj koraal danga ma baal la masuk rumah buk teriak sama kali. Hola, ci portavo un buon. man dama def erreur erreur bi def mooy yow da ngaa jorul jox benn confiance parce que depuis kañ laa la topp génneel sa ñaari gars yi gi ñu séddoo kër gi ngay dof dof da nga yow yow yow eh yow da ngaa moom kër gi. doo bàyyi fen. eh hmm. kër gi. yaay fen wala fen. Eh, yaa yaa ngi maamu de. Eh, madame Diallo moomoo kër gi. duul la ngay def yow. waaw. waxi dof waxi nit. waxi nit salo paar salo tedda kon dangaa mandi tedda waas mandi nga def ba yàqu nii di wax ah bon waaw ah mandi weeru koor nga xas man ma mandi xam ni madame mu kër Alright. Naka mu? Yang cool. Nice. Sus na mo naal de. Why, maala raw dama la namu bokk. Ye boy. Matax nah, ma tew di. Wey. Mais yow ma amoon problème pour ñëw ci gaale bi. Xolal musuma am problème. Surtout tay nag tay duma am problème. no ma doon sa duma réer. No. boy. Yàlla ya ay rege je ay. Mais yow. Boy, mbaa du yamba moo no ci biir fourne bi nii. <laughs> No boy, yo, ay bandi boy. xoolal koñ bi ñëpp a màgg. waaye yow moo tax koñ bi gisuma kenn waaye. nu mu déwénee ni yow. gis nga de ku yor biiru tañu ni yow. non bul waxee noonu temps yi rek damay lekk suma xaalis. a ah, xoolal tay tay la tay tay dara war yomb warul sedd gaañ tay warul sedd waaye may mu jàll waaw. bàyyi loolu mais booy fils dafa am benn secret bu nekk ci biir gaale bu benn contrat bu nekk fii xamante ne su ma ko jotee su ma ñëpp laay tëbal ci biti affaire boobu nag xoolal man bu nekk pour gis affaire bi mais gis gars yi moo tax ma pour sa affaire bii nii soo leen ko defee lu ma leen laaj ñu wax ko. tey tey. lu nëbbu woon dina feeñ. yaa ba mu saf saf. gaañ loolu wax yow. Mm. ma fàtte yow. non booy fils yow gànn nga booy. waroo ma fàtte de. gànn nga. tey dama koy yokk tey xoolal. nice. day neex. léegi nag. bi fii ngay ko gaala mana mu lay noq ba mu gàdde de eh. Ah, eh. Eh, cinquante minutes def naa ko fii di fële waaw boo dee fëgg doo def daal ça va ça va bon ma yow suma rax nga waaw suma gaan nga ma bëgg la d'accord bul ah. jooy loolu dara bul jooy man amul problème man amuma problème yow

man sañ sa ah, ah. ah, kon. man sañ sa naa de. bon man gis contrat kër gi. man ki ma jox caabi kër gi. ci kaw la jógee dafa jékki-jékki rek daaru samay tànk. kon mu gisoo contrat bi. xam naa ne gëmoo ma mais loolu moo si gëm naa de. Hmm. xam nga problème bi mooy man dama déggul li ngay wax quoi. li fi wax yëpp déggoo. dégguma ko. da ngaa xaw a dof nag. non dégguma la de. yow li ma wax bi yëpp déggoo. eu ko dafa mel ni dafa am ay xale xaw ma ay booy yu coow daal. dégguma ko dégg ay coow xale bruit boobu. dégguma ko. pourtant man maa ngi koy man dégguma pourtant man. Eh, sama guy, rasa fry. Tay dañuy célébrer bés bu mag, bis bu reuy. Muy Bob Marley. Ma bëggoon nak discours bu reuy, bu daw yaram. yéen sama frère Africa yi Africa ñun waruñoo am nëbboo ñun waruñoo am na boo tay secret warul am ñun dañoo war a leeral lépp boo amu ci waruñoo am nëbboo Mike Zoar ah comment tu vas ça va tey nat ba tey ba bés bu màgg la bés boomaare boomaare mi nga xam ne macha allah sunu maam sunu xarit moo fi jur nen na nen la Malle Fatou Malle Demba Malle Safia Malle Pate Malle Fatou Malle moo fi jur Prince Maar moo fi jur Maar macha allah dafa bëri doom tey nat ñu war kaa dama bëgg nat tey sama voix ma yàlla may ma woy si Bomaré ndax tey la tey suba nettre gi ñoo jàpp ma temps pam pam pam pam pam Apollo soldier. Apollo soldier. Apollo soldier. Apollo soldier. Pa ta ta ta ta ta. Pa pa pa pa pa pa. Rastafari. Rastafari. Wasa fa fa fa. Ah! Oh, ra a a a ba lo sa da mom dai ja a Ah. Ah. Ben, blok tata. Ah. Ta ta ta ta ta ta. Jërëjëf, jërëjëf. Merci. Merci, merci, merci. D'accord, jërëjëf. Bon, ah, merci, merci. Nee naa leen képp ku bëgg lu leer man ngay jàppale ndax man ci lu leer laay dox doxuma ci lu lëndëm lépp lu ngeen bëggoon a xam tey laa koy xam danaa leen koy leeral ba mu leer nañ madame Diallo moo ma seeti madame Diallo moo ma fekk si madame Diallo moo ma gis madame Diallo moo ma seeti madame Diallo moo ma gis. déedéet euh, après madame Diallo bi mu la seet see quoi action yi gaale beeg kii continuer quoi discours bi lañ bëgg mu kii après waaw waaw mu gën a leer daal. si si Fanta Diallo oh oh Fanta Diallo si Fanta Diallo oh oh Fanta Diallo tàccu leen si si oh, oh, Fanta Diallo si Fanta Diallo. non kii mooy défiant dëgg-dëgg ni ñu sonnee fii gën eh. mandiloo ko boobu ba léegi pour xam affaire bi waxul dara quoi. Oh, Fanta Diallo. Fanta Giallo. Oh oh, Fanta. Ya, Mamma ya? mia,